beneen bi mooy instant bi nga xamante ne nii Ousmane Sonko ba tey mu ci prison bi fii ci réew bu Sénégal moom daanaka yëngu-yëngu jëm ci waa Pastef dana tekk Dakar. mais non réew mi moom dégg newul tekk Dakar. non ci réew mi. mi néew fi tekk. lan fi am li mu fi am mooy ku fi daje ku fi indi sam daje. moo xam da ngay football da ngay làmb da ngay politique da ngay ngént da ngay ceetal ñu jël Ousmane Sonko def ko ci digg xaw ba mu neex. ñun ma sa tekk Dakar. loolu du activité. ah activité la kay activité activité sa sa lu muy jariñ sa logo bi lu muy jariñ ku la xam ku la gis xam ne Sénégal set la sa couleur yi lu muy jariñ ku la gis xam ne lii fi studio bu rafet la lan lay jariñ Sonko ci xaw yi ak Sonko ci stade yi Sonko ci ndaje yi Sonko ci mboolooy mooy xel yi des ci Sonko te ñoom duñ bokk na ci seeni activité ñoom état du Sénégal mu doon ko ñu fàtte koo xam ne dafa koo xam ne day génn ci ci politique bi. c'est que man man yow yow yow li nga may wax nii dafa nekk. mode communication bu ngeen adopté. déedéet déedéet yaa ko gisee noonu rek waaye ñun mode communication ñun li ñuy wax ne amul lu ci dañ. ndax man li ma lay wax ay fee la mën naa ci teg sama loxo. du mode ah, de communication mooy li am. non non c'est que li am lan la dañuy jël Sonko di ko emprisonné. li nekkoon dëgg dëgg dëgg dëgg seen objectif ci mbir mi mooy ñoom ñu daj ko ci prison bi tëjaale ko ci xol yi tëjaale ko ci xel yi ñëpp fàtte ko parce que sëñ Tuubaa dañ koy exil dañu ne woon nañ ko yóbbu suñ ko yóbboo nit ñi fàtte bañ ko yóbboo diir bu yàgg gis nañ ko bëgg jëriñu dara dañ ko delloo si aussi kii noonu dong lay dem wax naa patriote fii ne leen wallahi rabbil kaxbati su ngeen amee way way ga ko jiitu Sonko di seen lépp di seenam xëy di seenam ngeen da ci def guddeeg bëccëg la leen ci war lépp dabañ ko fàtte ci seen lenn ku ngeen am wala ku ngeen xam fexe ba mu nekk patriote gëm procès Sonko bii wallahi balaa yàgg gaa yi bàyyi ko waaye bu ngeen ko jëmee fàtte fàttelu rek voilà waaw waykat na dafa xam ne boo ko fàttee fu ñu fàtte fàttelu say mbir war nga foo toll far ko def ko léegi la fait ñu naan Sonko na mën a lu muy lu muy signifié. la muy signifié mooy ñu yëg ne ñoom ñi fi ne bëgg na ñun ñoo fi ne ñu ngi nii Sonko nii fi ma ngi prison fàttali la ay mbiram yéeg na ñu xamal la nag ca prison ba ngeen bëgg ko fàtte ay mbiram ne yéen ñi ne junni ne fi nag fa ka annahum mayituun da ngeen a mel na ñoo xam ne maf xóodu na danaa nekku leen fi yéen loolu lañ ci jublu waaw léegi waaw man a waaw nangul naa la ne yéen ngi def mais la na ngeen daan defee di génn ci mbedd yi wala ngeen organiser ay affaire lan ngeen def. waaw ah, ñun xam nga dañoo amoon. ngeen def dañoo amoon leader ñoom. waaw leader boo xam ne moom moo ñu daan wax nii la ak naxal ak na ñun lu ñu def mënu ko wax. léegi moom lam ñu wax actuellement ne waaj leen. waaj leen firndeel nga ne yéen moom. keneen topp ci ginnaaw ah ñun ñun ñun. ah kat ñun amul kenn ci àdduna laa la wax ku ñu jëndee Sonko wala ku ñu indi ñu présenté ah, d'accord nañu d'accord voilà ku fi ne suñu kanam suñu ginnaaw ku dul moom ah mais tamit parti kay de am na dañ koy structure Ousmane Sonko du président du vice président du secrétaire du nangam du nangam mais am na yooyu yëpp voilà am nga yëpp da koy am waaw nga mbir mi ñu ñun man ma ci bokkoon sax laay wax waaw ñi bokk non yow bi moom Pastef nga bokk waa Pastef nañ la génn benn reçu bi na man sama jënd bi rek waaw léegi après dégg ma la wax man damaa bokk ñoom ay conviction gëm bëgg man damaa ne seen seen mbir seen nga guddi yi ma toll suñ ne moon faral la président de république soo ko laay wax de. loolu déedéet xam nga Sonko am na. Sonko mooy Pastef déedéet déedéet. mooy la personne xanaa sympathisant amut. lan ci sympathisant amut ci politique. ñooñu nga tuddee sa bopp. non ñun ñun ñooñu rek. dañoo seen mbir mi bëgg ko mu neex ñu. ñu fas yéene cee dex na lu raw. danaa seey ci mbir mi fi mu toll nii membre moom. waaw bu fekkee ne waaw waaw xam nga mbir mi man. seeyal naa ci samay xalaat. Ah. seeyal ci sama bëgg. ndax damaa jàpp ne man réew mi man réew mi laa yaakaar. sax nga réew mi laa yaakaar ndax réew mi man fi laa ma xëy fi laay lekk comme ma defi laay naanu sama man yaakaar a yàlla waaw mais da nangu ne Pastef taxul bokk nga Pastef nga bokk déedéet ci bokk ah, naa Pastef ko déedéet ah bañ a bokkee waaw su ma ko ci bokkee rek dinaa ko nangu dama ci bokk waaye en daal lenn am na léegi mooy man waaw adduna bii nu nekk di muy dox surtout Sénégal gi ah. xalaat yi fiy jaar ngir luy dimbalew xeet ah. ak askan ah. ak lu fi jëlee eh, ay caaxaan indi fi maanute man ne ci song koo wax mooy li ma jàpp mooy li ma gëm mooy li ma ànd te su ma su ma sañoon su ma manoon di jëf ngoonu tey laa ko yóbbu ci pare ba su ma bàyyi sax ay 2024 waaw waaw d'accord gis gëwuma ci kenn yii yëpp nga wax naan ma ay ay Bougane ak ay Malick Gakou ñooñu dañoo bëgg dañoo defe ne maanaam jëmmi maître maître des jeux dafa newul ci terrain bi Hmm. après ñoom ñuy jéem a euh, di ko di wax ak di lancer fu am appel. moo ne ñoom dañuy jàppale. di kii de doon tudd sax Sonko de. kenn ñu soxla wuñ ko man de man boog man soxla wu ma ko xam nga ji bi daa am jàppandal loo xam ne. Hmm. gënul yow nga toog fii yow ji bi. Ah. yow fii sam xar dem doxasee soxla fekk fa benn waay waa ji mi ñëw di sàcc xar mi waajaa sa benn waay mi ngi toog di xool xar mu yeewi xaral mu koy xool muy rend xar muy seetaan mu jël ndawal gi def ci saakum yóbbu nga di ko seetaan mu di ko seetaan nga ñëw mu nga ñëw mu naan la waaw man kay jël gi ray jël gi njël xar metti na ma ray gi ñu xar metti na ma man kay naa ma loolu loolu la nga ko jàpp yow noonu nga ko analyser noonu laa ko analyser ñoom ñuy def sonko li ñu koy def ñuy seetaan ñuy wax sonko li ñu koy wax ñuy seetaan jéemuñ ci dara ba bañ àndee ak sonko sonko gañeel fexe ba gañee leen seen ville de Guédiawaye fexe fexe fexe bañ jàpp ne la sa waay génn na ci carte gi sama classe bu gàtt xel gii nag lañ bëgg ne voilà léegi comme euh, Sonko gaa yeeg tooñ gaa yeeg ne gaa yeeg ñu ne ah diw kat Malick Gakou kat ku jàppale Sonko la ah diw kat ku jàppale Sonko la foofu la ñu bëgg moom waaye xanaa seen xel gaa yi tulluwut noonu combat bi kenn na ko combat muy Sonko la cay metti itam ci moom la metti la la mu ci yëgit moo ko yëg te moom dong moo ko wéet léegi nag xel moom mii mu am fexe leen ba am ko yéen ni moom mooy bu fexe leen leen ànd ku dul moom bu leen déglu ku dul moom gis koy défendre nii man de wallaahi wa rabbil kaaba di ku demoon ah wax rek laay topp dama koy déglu rek man li mu wax rek loolu moom mën naa nekk man moom Sonkiste laa mën na nekk. ah d' accord ah, loolu moom bu léegi jubóo nañ léegi dootuma wax te man du ma Pastef. loolu loolu d' naa ci loolu mën na nekk. Sonkiste loolu mën na nekk. léegi sëñ bi. Ah. combat bi ngeen jël ko fii yóbbu ko ci biti réew. waaw ah. délocaliser délocaliser ko. waaw dañoo fay bor rek. waaw ah, fay bor dañoo fay bor kamaatu diinu tuddan ni nga lebe dara lañ lay fay. moo lay fayee mooy Macky Sall def na ko Ablaye Wade dañu demee Chomé 2011. def na ko Ablaye Wade ñu wuli seen i booy opposition bi ñu daje Ablaye Wade yàkk ko wax ko lu ne. kon da ngeen di fayantoo. ñun fayantoo wuñ waaye yàlla moom mooy fayantoo yàlla moom mooy def. ala kum fil xisaas xayaatun da ngeen di fayandoo. ñoo fayandoowul. te nun te nun nag la ñu ñoom bañ koy def Ablaye Wade. ñun dañ leen tegal ay preuve leer. gaa yu maa ngi leen di gëmal di leen xamal ne ren ñoom ñu doon def loolu yi. pare yàlla mi ngi leen daxaar xaar. Hmm. waaw say nawle say bokk say dëkkandoo say bokki citoyen ñu dee ci loo xam ne kenn xamul dee dee ak lan la nga dem ba ca président wan ko ko ne ko lii leeral ko ku mu mën a doon na leer te moom kat moo yaayoo di leeral. Hmm. parce mooy la ñuy wax gardien de la constitution. Abdou rek la moo fa yóbbu boo leen fa yóbbu woon ñoom ba ñu demee gis Abdoulaye Wade waaye def nañ ko te boo yóbbuñu ay preuve lu Abdoulaye Wade def ci mu ñaawteef wala lu wax ci mu ñaawteef te ñoom tegal nañ leen ay vidéo yu leer ne leen ñii dañoo dee li leen rey wax leen ñu ko te ba tey ñi ngi sàkk loolu nag dégg ñi ngi sàkk ñu leeral ko ñi ngi sàkk ñu ubbi ay ay dossiers ñi ngi sàkk mu dem ci justice loolu may wax ci d'accord après nag Macky moom mu fa demoon en tant que président de la République mm-hmm. nekku fa comme président boo xam ne injustice ngay ngay def ci sam fa comme président boo xam ne maanaam yow bu justice bi lu la neex nga koy manipuler. d'accord ko moom dong. parce que Alassane ko doon tere bu ko doon tere loola ñëpp te maa nga fa te amul problème boobu loolu def ko te ñeneen ñi defuñu ko xam nga xam nga lu parce que yëg yi ay jàmbaar lañ hmm. bëgg seen réew nañ parce que ña fa nekk ñëpp ba ñu jógee senegal di wut ay visa di génn xaalis di paas si tukki kaar fa Macky Sall ngir defante moom doxul woon la leen fa yóbbu mooy am lu ñu dundee ak lu ñu dundee seen ak njaboot ak li seen wërsëg ku ci yàlla boole moo leen fa yóbbu waaye ba ñëwee ba yëg na ñu ba ci réew mi ñu ngi leen di néewal doole ñu ngi dee dee goo xam ne dee gi ba tey gi leerul lu war a seenu dee ñi nga gis nit di def tooñ tooñaa ngi bu la weng ñu bàyyi ko muy doxal soxlaam gis koo xam ne xamuñ lu mu def ñu ne ko ràpp ci prison bokkam duñ ko mën a gis duñ ko mën a dégg loolu danañu rakkalaami ci te loolu ñoom bañ demee néew ñi rek di ko wax ci kasaa kasaa de dañoo teg ay firnde ak i preuve yu leer nañ yuy wane ne lii ak lii ak lii ak lii ak leeraange war na ci am te ak leeraange am ci loolu nag man li ma ci tax a bég mooy maasug Seex Yérim yi nga xam ne ci réew mi bëgg a sang derub Macky Sall te bu ñu leen seetaanee ñu bëggoo leen ci bitim réew Sénégal am volonté bu toll du ñu leen ci baax ñun ñu seqal fii réew mi tey nga xam ne dañuy wax ay wolof nit ñi déggu du ñeenti leen ci des bitim réew yëpp ñu ngi def seen liggéey loolu nag jihaad la jihaad la ci ñoom hmm. jihaad la man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastatih fa bi qalbihi wa in lam yastatih fa bi lisaanihi wa dhalika ad'aful ñoom def nañ ko ci seen kéemtalaay kàttan nañ ko ma ne yonente mi nag nee na jullee koor def ci ay nawaafil yu dul jeex nee na kalimatul xaq hinda sultaanil jaayir huwa afdalu wa ala mën a fekk buur bu dëng bu tegul mbiram ci yoon nga taxaw wax ko dëgg wan ko ko mu leer ko ne rëdd ne rëdd baaraamam. Mm-hmm. nee moo gën nawaafi moo gën naafi lay jullee koor nee na moo ko gën. nee it jéem a sàmm say institution nee na moo gën a doon doon doon ko sàmm say institution yent bi nee na moo gën di def ay nawaafi lay jullee war ak bari looy dem ci tàkkee. d'accord. te alxuraan su naal na ne wa min rabaatil xayri turhibuuna bihi aduwwallaahi wa aduwwakum te sàmm say institution weesuwut wala sàmm sa constitution weesuwut sàmm sa àq ak say doomi say doomi dëkk weesuwut nga bàyyi sam liggéey te ñu ëpp ci ñoom liggéey jàmbur la ñu yor ngir na rek lii na leer. seen président ñëw biti réew ngeen yuuxu ko def lu leen neex. waaw parce que seen président dañoo. mën lu ternir ñuy def seen image parce que li muy tegtale mooy fii ñu bu ko fa mënoon am du ñu ko fa defee maanaam mbirum manifestation yi ñu arrêté yi ñu indi. yi ñu interdit ba nit ñi def seen manifestation ba am ñu ci dee. mbirum candidature nit ñi ñu bëgg a kale nit ñi taxaw di ko ak ñoom mbirum bëgg jàpp ku la deful dara yii yëpp bu amul woon. bu ñu am ak moom problème ba di ko kar fenn di ko yuux bu ñu ko yuuxoo kon ci boobaa ci lu ñu koy yuux dañuy jékki-jékki rek xool yuux ba mu neex ñu daal wala dañ koy xool ba mu neex ñu daal ñu dem créé suñu image ñëw sa ñun borom xel ku def lool waaye nag fii kuy bañ ku ko wax bu mu ko def ku ko def ñu wax ko hmm. ku ko def ñu wax ko Macky Sall bu mënee di dem États-Unis gis fa lam fa gis métti na ci moom tàng na ci moom discours am ba seetaan naa ko. noo ko jàngatee laa di ma ko jàngatee mu nekk.